salaamaaleykum mbokku internet ugfm ñu ngi leen di nuyu dina remercier encore une fois di mbég am mbégte di leen wax ne am nañ ñu benn invité bu am solo muy Birame Gningue nekk manager euh, Modou Lo euh, lutteur euh, Rock Énergie ñu fekk fii këram pour waxtaan ak moom lu jëm si combat bi weesu ak rumeur yu ñu dégg ay deg sortie Aziz Ndiaye ak ak ñoom seen défaite bi mu revenir si un peu ak perspective Rock Énergie Père Birame ñu ngi nuyu. maa ngi leen di nuyu waa IGFM maa ngi leen di nuyu bu baax di leen remercier. Euh, père d'abord nous dañuy revenir un peu combat qu'est-ce qui se passe exactement euh, sa poulain a défaite ci euh, revenir un peu qu'est-ce qui s'est passé lan waral mais je pense que revenir la défaite du monde. je pense que dina un quoi parce que aussi de préparation de yalla def euh, combat bi jour combat bi Balle ñëw euh, vraiment gagné combat bi nous abord féliciter au passage di ñaan vraiment victoire bi jikko da mhm. parce que aussi lolu moy lamb aussi hein. lamb sport la te sport mom il faut ñu nangu da fay am un vainqueur et un vaincu. Mhm. donc ce jour là Balle a été meilleur et il a gagné. voilà c'est ça. Il mhm. foog ngeen yéen foog ngeen ko kal dal ay ball a été meilleur mais am na ñu bari ñu wax ni euh, mode a été atteint que Modou ne s'était pas bien préparé. Mm-hmm. y a est-ce que est-ce que Modou s'est bien préparé du combat non tout le monde sait que Modou s'est très très bien préparé Il xam a pas Modou préparé parce que y a au moins deux mois en Espagne ànd au moins douze personnes encadreurs techniciens ils ont nga xam ne lay contact je pense que négligé wu dara def fait tout pour gagner le combat Ils ont fait tout rek comme ni ma loolu moo indi tey parce que defet bu see am yaakaar naa euh, lu ne la nit ñi di wax mm-hmm. mais réalité bi mooy vraiment Modou li mu waroon def yëpp def na ko bàyyiwul dara négligé wul dara mm-hmm. sur tous les plans nag si côté vraiment euh, entraînement ci côté mystique li mu waroon def def na ko donc je pense que li mu li mu def bi daaw ko def sax si làmb li mu ñëpp xam nañ ne tey ñëpp d' accord nañu ne Modou li mu def si làmb bi mosu ko def si làmb mm-hmm. donc euh, négligé wul woon dara mais nag bu defet jotee dañu nangu rek na defet ñëw na et puis ñu ñu ñu ñu tekk de côté passer à autre chose. kon mm-hmm. je pense que période bi foofu lañ toll. d'accord mais jour boobu après bi affaire bi jàllee yéen nan ngeen dundee nan ngeen dundee defet bi seen coté métti woon na j'imagine. nan ngeen dundee waaw mbër mi moom métti woon na ci moom ça moom il faut ñu nangu ko quoi parce que aussi jël sa préparation presque huit mois walla wala neuf mois nga préparer un combat def lépp li nga war a def. ba sa xel dal ba yaakaar ne vraiment boo demee da nga ñëw rek gagné sa combat dem ni mu demee faut mu metti donc loolu vraiment kii nañ ko quand même euh, digérer nañ ko très rapidement parce que li tax ñu digérer ko mooy dañu nangu ne rek xam nga bu fekkee li nga war defuloo ko peut-être am nga di am ay regret mais Modou amul dara lu muy parce que li mu waroon def yëpp gëm nañ ne def na ko waaw parce que li mu dépense ci combat bi mosu ko dépense ci combat fi mu jaar si préparation ñëpp xam nañ ne vraiment euh, mbër euh, yàgg na fi mais defu ko waaw kenn mësul gis mbër muy dem voyage yóbbaale say entraîneur yóbbaale say kii préparer combat de manière très très très très très sérieuse donc on ne peut pas reprocher li am daal mooy defet ñëw na daal nañ nangu na defet na. ñaata la dépensé taxal li ñu dépensé moom man xaw ma ko parce que loolu am na yoo xam ne mënuloo ko xam mais je sais qu'il a beaucoup dépensé parce que boo jëlee ay mbër yóbbu leen ay douze personnes par exemple. ah yóbbu leen ñu nekk ci hôtel jël leen ay billets ñu nekk ci hôtel

Mhm. koo daan ñaari yoon rek boo ne yaa ko man kenn du ko weddi quoi ñun mën nañ ci d' accord des rek mooy préparé wu euh, lii ñëw suñu kanam quoi mais lii moom ñun vraiment ñun effort bàyyi nañ ko parce que jàll na. d' accord ñun moom on a à autre chose. autre chose ok à autre chose boobu dañoo remarqué woon bi lendemain euh, défaite bi Modou dafa bëggoon jàkkaarloo ak presse bi. Euh, lan moo waroon précipitation boobu lan moo taxoon moo bëggoon si saa si waxtaan ak jox jàkkaarloog presse loo xam ne. Mm-hmm. ñun on a mosuñu ko gis. en fait lu waroon loolu. waaw loolu moom euh, comme ni nga ko constaté rek wax ji dafa bari woon Modou dafa jugé woon pour gis supporter te mënul ñëw fëgg buntu ku ne pour jéggalu ko xamal ko ne vraiment alhamdulilah am na defet mais problème amul. maanaam dara jotu ko donc loolu rek la bëggoon du leneen ñëw ñu woon pour fustiger comportement wu kenn pour wax waxu kenn moom dafa bëggoon comme communier ak ay at ay comment dirais ay supporter am donc loolu moo waraloon euh, lendemain combat bi bi ma demee seet ku mu ne père daal comme coow li mu ngi bëgg a bëri il faut moon leen ne vraiment alhamdulilah génn nañ ci ak jàmm amuñu blessure gaañuñu dara dem nañ ba dégg nañ sax ki daanu day paralysé yi demee noonu donc c' est des choses yi nga xam ne il fallait lever l' équivoque waxtaan ak nit ñi c' était tout hein. c' était pas pour leneen mhm. c' était pas pour justifier défaite bi wala affaire yooyu non non non c' est juste pour recadrer il faut ci recadrer waat affaire yi c' était juste rek pour wax ak ay supporters am rassurer leen ndax gis nañu naxar bi supporters yi am li xew ci dëkk bi yaakaar naa ñëpp gis nañ ko daanu na mu mel ni yaa ngi dégg supporters dañ jàpp ne Modou moo daan ndax lu ne def nañ ko jubilé nañ lu nekk def nañ ko encouragé ko donc tey moom li ko war mooy mu delloo leen njukkal xamal leen ne ça va ni mu ko mën a defee nag mooy c'était pour passer par la presse ak yooyu bon li waral report bi nag je pense que c'est simple aussi ñëpp xam nañ ko parce que defaguñu face to face mujj bi donc actuellement suñu contrat ak ñi IACOM bi tëgg combat bi donc euh, jeexagul euh, ñu oo leen laaj leen ñu ne face to face bi ñu ngi koy def peut-être maximum dans une semaine

ok euh, ci biir loolu aussi bon am nañu ay rumeur ah, yu bëri yu ñu dégg tam que euh, Modou il s'est senti trahi que entourage am dañ ko trahir du ñëpp mais am na ñu dégg naan dañ ko trahir yow sax dégg naa sa tur ni ki biram ñu ngi naan ñu naan biram ñu ngi da ko jaay ak lu ne dañ koy dégg <laughs> waaye loolu est-ce que est-ce que loolu am na est-ce que trahison bi ñuy wax d'abord. am na waaw mais Salif làmb bu amee surtout défaite am lu ne dañ ko dégg mais ñun Modou xam na. ñun xam nañ yàlla xam na waaw moom daal benn trahison amul ci digganteem ak benn kenn ci istafam waaw man maa ngi dégg rumeur yooyu ñu naan am na ñoo xam ne ñi man sax tey laa dégg sama mais eh, dégg naa ne am na ñu ko trahir mais Modou kenn trahiru ko kenn trahiru ñëw def li mu war a def ña mu doon àndal ba muy gañe ñoom la àndal la mu doon def ba muy gañe moom la def bu sinon même plus bu defet ñëwee nag dañu koy nangu xam ne on est tous des sportifs ñu nangu koo xam ne lii suñu defet la waaw préparé wu nag pour yii ñëw man je pense que loolu mooy philosophie bi nga xam ne bi ñëpp war nañ ko jël waaye Modou préparé wul bi mu ñëwee indiwul doole bi mu ñëwee kiiwul mais koo xam ne kii def nga ay weer jël sa xaalis bi nga amoon yëpp nga dépensé ko sa bopp ñu ñëw tey naan liggéeyu et ça c'est ay staff kan moo ko trahir Modou ñu mu doon àndal la àndal ñi mu doon àndal ba muy daan euh, comment dire Gris Bordeaux ba muy daan lag de ba muy daan Eumeu Sène ñi mu doon àndal lay àndal ba léegi donc tey amul dara lu war a mën a tax ñuy wax naan diw daf ko trahir kenn trahir ko bu ñu accuser kenn moom démb moom lañ doon waxtaanee am na yoo xam ne vraiment du wax yi vraiment sportif doo ñàkk nag bëgg taxal défaite victoire u Balla bi kenn du ko taxal daf ko daan ko ñu koy encouragé di ko félicité di ko félicité plutôt pour affaire yi jikko bu baax a baax bon supporters yi lu ne def nañ ko encadrement yi fu na dugg nañ nit du liggéey ba toll fii boo ko mënul wax jërëjëf vraiment nga noppi mais quant kii moo def lii kii moo ko trahir kii moo jaay combat bi noonu la ñuy jaayee combat bi. donc amul du am benn benn kenn ku ñuy naan dañuy. non ay dañuy dañ koy tëbal si biir ak énergie ñu fi nekkoon ñoo fi nekkaat. prochaine fois ñoo fi nekk d'ailleurs hier on s'est réunis yaa ngi dégg ñëpp kenn desul tout le monde était là ndax ginnaaw bu ñu naqarloo defet bi nga xam ne bi am nañ ko xoolaat lii suñu kanam je pense que loolu mooy l'essentiel waaw ñun lii vraiment on l'a vite oublié.

faut 200 millions. c'est ça Ça euh, faut mm-hmm. mm-hmm. pour nous mm-hmm. juste n'a juste pour que balle devant. pour ah. balle devant. en tant que manager euh, est-ce que yow d'abord bi ngeen signé euh, accepté jël est-ce que vous ngeen Aziz Ndiaye combat voilà. du tout parce que Aziz ne s'est pas présenté. Donc, euh, une société qui s'appelle IACOM, dirigée par Issa Ndiaye, nous avons démarché combat Quand nous démarré démarché combat bien sûr qu'Aziz, Aziz bi ñu signé contrat il était là-bas mais le titre est ma fa toogee woon moom la fa agent de signé pour le Gaye man signé pour Modlo. Nous ñu signé devant l'avocat, maître Bamba Sissé, donc Issa Ndiaye du promoteur donc. Euh, à partir de ce moment kenn mënul comprendre ne am na leneen lu nekk ci gana peut-être si démarche yi nga xam ne moom lañ doon def lañ doon am ay soupçon mais nag jouru combat bi bi combat bi jeexe mais moom mu wax li nga xam ne lii mooy réalité boobu la ñëpp xamee ne peut-être Aziz moo nekk ci gannaaw parce que am na temps ñu doon jiital Gaston di ko nëbbatoo a ah, di ëllëg Issa Ndiaye di ko laaxatoo ndax Issa moo dagg licence moo def lépp moom mooy promoteur lamp yi donc tay bu ñëwee nag ya ngi dégg def un aveu xamal nit ñi né mom mo tëgg combat bi moom moo génne xaalisam moo tëgg combat bi moom moo joxaat Balla Gaye cent millions pour mu préparer mo joxat balle gay 35 millions pour yobbu ko INSEP moko demal Mali moko demal euh, comment dire je euh, Inde demal ko Nigeria demal ko Mauritanie lolu mom moko wax donc lolu motax d'ailleurs ñu fustiger affaire bobu parce que en tant que membre du CNG c'est vraiment malheureux ngay am yenn comportement d'ailleurs on l'a dénoncé on a écrit au ministre on a écrit au CNG Vous parlez de wax ko ñëpp. mooy lettre mooy lettre a lettre bi nga le ministre ministre pour que mon, ci boppam vraiment mu jël ay dispositions parce que yaakaar naa ne CNG membre yi fa nekk ministre est leen copté comme mon moo leen copté vraiment. war na mën a copte ñoo xamni ne ils sont responsables ou bien yaakaar naa Aziz sax ci bopam gannaaw comportement bi mu am moom moo war a démissionné parce que euh, nit ki yaa ngi dégg da ngay logique man en tant que manager wu Modou ou bien agent wu Modou bu ma demoon ba ñu copte ma CNG am na comportement yoo xam ne dootuma ko amati parce que c' est dafa ñaaw trop def yenn yi mel ni da nga jël mbër mi jox ko lii mbër mu leen nga jox ko lale privilégié ko pour kii pour mu jox comme ni mu ko waxee mais vraiment c' vraiment. mais est ce que tamit CNG aussi amu ci part de responsabilité ci mbir moomu. waaw mais peut-être CNG man man mënu ci am part de responsabilité. parce que parce que li tax ma loolu parce que gis na ni Aziz euh, membre comité la. CNG waaw en même temps mu mu wane fu mu far ci Balla. waaw non lay wax ñaanu c'est un peu dafa nuance c'est-à-dire que CNG actuellement ni disposition yi mo war jël mom mokay jël parce que membre du CNG yi ku nek am ku ne sa xol lolu kenn mënu ko bañal Aziz kenn mënu ko ko bañal parce que aussi am droit jappalé Balla gay am droit defal lu ko neex Balla gay ko kenn mënu ko sifi mu nek CNG ak mu baña nek CNG xana président de la république sa am na ko mu supporté ci xolam mais lolu amul importance mais statut yene bok amé da ngay xoolaat sa comportement par rapport ak li nga xamni mom ngay def parce que lamb aussi suñu sport la waruñu ko taxal taxal yene yi xam li moo donc CNG je pense que dina jël ay ay ay ay mesure am parce que bi muy ñew CNG et eh, xamna lan moy CNG ministre bi ko copté war na mën jël ay mesure am parce que Aziz ak yi mu def yépp amatul place ci CNG bon je sais pas. sud bi mais en tout cas tout le monde sait que amatul place. ñun turu Aziz bi c'est même gênant d'en de de d'en parler ay tudd Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye mën naa ñàkk da ngay wax membre CNG bu def telle et telle chose man je pense que man il faut ñu recadrer waat débat yi tuuti man loolu moo tax may wax mais Aziz man sama xarit la aw ben benn problème ak moom vraiment am mais nag boo xësee nekk membre CNG moomatuloo sa bopp am na comportement yoo xam ni waratoo ko am man foofu rek lay waxee. mais Kanta moo supporté Balla Gaye mais il a le toog na ne mooy sama papa moo yor sama lépp mooy defal lépp moom mu abu man maa koy fayal lii maa koy fayal lale mais loolu il est libre ndax man maa ngi jàppale Modou maa ngi koy defal lu lu ma man mais vraiment bu ma nekkoon membre CNG du ma toog nag si télé yi si rajo yi si réseaux sociaux yi di xamal ñit ñi ne kii mu commencé di rectifier dégg naa maa ngi gis réseaux sociaux yi mu naa non man mu dama doon wax noonu waaye tëgguma combat bi loolu la commencé wax mais bon c'est c'est déjà trop tard quoi. Mm, mm. c'est ça li mu wax jàll na ba pare. li mu wax jàll na ba pare ñëpp relayé nañ ko donc loolu moom vraiment mënatuñ si revenir. li des li nga des mhm. mhm. li des mooy ministre bi jël ay disposition waa xam ne eh, ñi mu copte am na si ñoo xam ne ñi vraiment amuñu seen place ci CNG am nañ seen place nag jàppale seen mbër am nañ seen place bu la neexee ñu dëgg la am ils sont mais nag boo nekkee membre CNG yéen waratu la. mais bi bi ngeen amee soupçon ngeen soupçon ni am lu est-ce la moo tax def leen wala saisir leen CNG instant boobu noonu. waaw mais Aziz Ndiaye tëgg làmb taxul Modou Lo daanu jàppale Balla Gaye taxul Modou Lo daanu donc ñun loolu. amul duñu si am non non man pour man loolu amul benn influence. amul benn influence ndax moom day ñaan lu ñu ñuy ñaan lépp lu mu def peut-être ñun def nañ ko donc ñun loolu intéressé wu ñu noonu. non loolu intéressé wuñ te ñun duñu signé ab contrat ak ab société bu pare naan dégg nañ ne Aziz Ndiaye mu ngi si ñuy renoncer à ça mais kooku peine perdue la parce que mënul nekk dañu signé un contrat en bonne et devant un avocat et tout yaa ngi dégg signé ak la société IACOM dirigée par Issa Ndiaye donc ñun tout le reste lu ñëw après mais mënatuñ ci dara mënatuñ revenir à ça parce que Aziz Ndiaye jusqu'à présent signé wu la contrat la mu signé mooy pour Balla Gaye

fooy day waaj am na beneen combat bu mu bu mu tax bu taxaw diggante moom am Sène. Mhm. mu nekk combat bi nga da fay may revanche day jox revanche day may revanche euh, ki di am Sène. da koy may lay doon c'est ça. mën ñu revenir un peu comment ça fait que nan ngeen nan nan ngeen arrivé à ce combat bu taxaw kañ la taxaw exactement kañ ngeen kañ waaw c'est-à-dire combat bobu euh bu ma yobone peut-être comme on dit man nañ accepter ne combat bu am la inshallah au mois de juillet combat au mois de juillet ça c'est vrai pourquoi parce que nous, on a été contacté pour bëri ak Eumeu après combat donc pour manager avance il fallait que nous nous joxe suñu accord matérialisé pour que nous mën avance donc je ma contacté Modou il avait refusé comme d'habitude il a dit que non non non comme nous sommes ci combat vraiment, vraiment c'est pas la peine je préfère bëri ak Balla daan ko soog parce que moom rek moo fi sës mais man aussi en tant que son conseiller di manager di ko signer j'ai jugé utile que défaite mën victoire mën na euh, nul mën donc je prends le risque de signer donc. mu ànd si moom tamit. Hmm, je te dis que moom yëgul lu bari lu bari yëgu ko Modou après le yëg man signé avant après le ko après signer. le 1er février. Mhm. parce que je combat. waaw ce perturber ce combat ce ce combat mais après combat bi dinañ ci mais li wor dal man jël responsabilité jox len jox len un avance bu ngeen là c'est sûr que Eumeu Sène Modou lay bëre donc vraiment. mais est-ce que boobu nekkul beneen risque tamit parce que jóge ci Balla si défaite ñeu ñeu dajal ki nga xamanteni moy mooy wa réserve même bu fekkee ne daanoon ngeen ko. est-ce que du risque aussi ci mom enchaîner ci ci. deux combats yu mais Modou Modou mënul bëree combat bu dul risque Modou gis ngeen né tout le temps il n'est pas favori combat bu ñeu dañ naan Modou n'est pas favori ba muy bëreeg Eumeu Sène bu njëkk ba dañ ne woon moy favori. muy bëreeg Gris Bordeaux ñu ne Gris Bordeaux mooy favori muy bëreeg Lac de Guiers ñu bëreeg ñu ne moom mooy favori muy bëreeg Bombardier mais gis nañ ce qui s'est passé Modou Lo sportif la te bëre mooy gagne-pain te roi des arènes mooy objectif am donc je pense que tout ça réuni mais dafa war a jël combat bu jëlul Eumeu Sène kan lay jël te c'est le combat bi imposé wu parce que combat boobu mooy bi nga xam ne bi ñëpp moom lañ doon xaar moom lañ doon xaar muy revanche bi mu ko war a jox eh, ndax moom moo ko daanoon bu paree muy muy roi des arènes bi. donc roi moom eh, te moom eh, Eumeu wax na haut et fort ñëpp dégg nañ ko man dootuma bëreeti ak Balla mais bëreetul ak Balla Gaye Eumeu Sène kan lay bëreel en tant que roi des moom loolu rek moo fi sës même ñi jëkk def déclaration bi amuñu dara lu leen leer dañu wax rek. c'est parce que xam nañ ne ëmm Modou lay xaar et que ëmm jot na avance donc nécessairement Modou Lo lay doon mais amuñu benn certitude que Modou Lo def na lii wala def na laa c'est la réalité mais nag comme wax nañ ko te yaakaar naa feeg le premier février vraiment mim man na fi ñàkk quoi moo tax ñu confirmer leen ne ñun am nañ accord ak benn structure boo xam ne bii dañu bëgg au mois de juillet ñu tëgg Modou Lo ak Balla ak euh, Eumeu Sène te effectivement le premier février Inch'Allah, di ngeen constater ne effectivement temps boobu dinañ jël avant te dinañ signé. di ngeen signé mais léegi donc euh, yéen roi des arènes bi ngeen di moo leen yitteel. mais bien entendu loolu koy ñun yaakaar naa bu ñu commencé ba léegi roi des arènes mooy suñu objectif plan bi nga xam ne bi moom la Modou Lo tegoon bii la bu ñu jógee si Balla ba rek amul malheureusement dañ ci am défaite mais moo nekkoon plan de carrière am parce que loolu moo ko dese Modou Lo ñëpp xam nañ ne amatul lu mu prouvé si làmb limuy xaar mooy roi des arènes te roi des arènes vraiment ah démb réunion bi gars yi ñu ngi ko doon wax vraiment opportunité la pour parcelle parce que parcelle Rock Énergie mosul am roi des arènes parcelle mosul am roi des arènes Guédiawaye am na ko Ndakaaru am na ko Mbour am na ko bon donc tey euh, occasion la tey pour ñu kii vraiment ñoom ñëpp ñu félicité moom moom fekkee ne réunion bi fekkewul réunion bi mais rendre naa compte parce que là le soir fii laa teg ak moom ba vingt deux heures

non mbiru làmb xam nga bokkul. c'est la même chose non c'est différent c'est la même chose xam nga kase c'est koy a koy xam. waaw mais du du Modou. Modou ñaata la. en tout cas motul 150. motu ko motu ko mais ëpp na 100 millions. ëpp na 100 woon cette fois-ci vraiment Dieu a fait vraiment discuter nañ loo xam ne lii c'est un bon contrat. vraiment boo xam ne bii vraiment jar na ko quoi. Hmm. mais nag matul cent cinquante millions gis naa ko si net bi ñuy wax cent cinquante millions mais malheureusement les gens du xaar xam du ñu xam nu mu demee quoi. Hmm. journaliste yi léegi dañuy joxe information yoo xam ne duñ. non journaliste yu leer la ñuy wax journaliste ay sources yu ñu la hmm. ñu am non amul wax ñu wax ñu cent trente la wala cent vingt la loolu moom mënaguñ ko wax parce que vraiment tollooguñ si li ñu d'accord mënaguñ ko wax parce que signé guñ ko dañuy xaar boo war ko signé peut-être bu boobaa promoteur bi dina dévoiler li mu li mu signé. parce que de toute façon le premier yàggatul le première février yàggatul te incha allah le premier février joxante nañu rendez-vous pour vraiment joxe avance bi joxe kii euh, signer affaire bi. dernière dernière étape bi mooy juste nga wax ñu un peu euh, revenir un peu si euh, làmb ji en général lan nga bëgg coow lan moo gis ni tey moom la moom la ñu a soppi ci làmb ji lan nga gis la moom la ñu war a soppi ko. Eh, en tout cas loolu moom ressortu CNG la ñi nga xam ne ñooy organiser lutte xam naa ne daal làmb ji vraiment en tout cas combat bi passé moom c'est un combat boo xam ne bi ça s'est très bien passé man gisuma si loo xam ne li à part seen pay bi nga xam ne moom lañ def vraiment mu bari ay problème bari ay coow mais làmb Modou ak Balla vraiment organisation bi jaar na yoon ça s'est bien passé les gens étaient disciplinés il y avait pas de problème du tout mais nag làmb la boo xam ne bii dafa am coow. Lambda, ji moo am am vraiment il fallait s'attendre à tout lu mais alhamdulilah génn parce que nga surtout ñu vraiment féliciter hein, vraiment nañ ci parce que am nañ comportement bu exemplaire xeexuñu ñàkk nañ ñibbi nañ vraiment bien que affaire mais

parce que ñun aussi lu defar làmb rek moo tax ñuy wax mais sinon mënoon nañu ci bañ a wax quoi nag bëgg nañ làmb bëggeel goo xam ne gii vraiment dañ ci bëgg lu ci nekk yëpp acteurs yëpp ku nekk def li nga xam ne mooy li nga war a def donc vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier di xam ne nag Modou vraiment il est en pleine forme donc euh, face to face bi ñoom ñu ko jàpp au plus tard mercredi d'après ce qu'ils nous ont dit moom Issa Ndiaye bi nga xam ne moom lañ signé contrat bi woonu dem démb wax ma loolu. donc waxaguñu déterminé guñu même date bi sax déterminer guñu ko dañ ne entre mardi ou mercredi. donc ñoom ñooy xool lieu bi nga xam ne foofu lañ koy defee incha allah comme ça ñu am occasion nag gis seen mbër bi nga xam ne bii ñàkk na ko mbaa bi mais vraiment euh, du loo xam ne li affecté na ko digéré na ko ni mu ko war a fàtte na ko tourné na la page te mu ngi passé à autre chose incha allah.